jërë ngeen jëf internetu Leewtoo TV ñu amaan mbégte tey présenté leen seen huitième numéro émission émission bi ñu naan jotaayu làmb une fois n'est pas de coutume ñuy tourné émission jotaayu làmb hors des locaux de Leewtoo TV waaye nag suñu invité bi moo toll noonu ci millier làmb ki ñuy invité tey fekkee na làmb démb làmb tey ñu koy ñaaral mu fekkee làmb suba également ñu ngi dajal Père Ngagne Diagne Père maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoog internetu Leewtoo TV. Eh, maa ngi nuyu internetu Leewtoo TV yëpp. di Euh, Leewtoo TV euh, di leen nuyu waa Leewtoo TV ak internet yi internet yi mhm. di leen nuyu yow Assane di nuyu sa caméraman euh, di la wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu aussi di rafetlu déplacement bi aussi dafa lié dafa lié ak suma calendrier mu mhm. nekk ci ñaari diggante mhm. def émission ci suba ak ci Tok Tok Sénégal ak ITV war a pare nag déplacement bi xëy na ngeen yombalal ma ko aussi euh, maa ngi ci sant. dëgg la père ñu lay remercier li ñu permettre euh, entretien bi waaye ñu war a waxtaanee ci quatre points ci polémique yi nga xam ne dox na ci ministre bu naan Malick Sall ak mbër yi dina wax également ci démarrage saison bi dina wax ci grande affice yi nga xam ne nii euh, jot na fee taxaw mais pour démarrer ñu wax ci polémique bi temps yi dañoo gis benn polémique bu am entre ministre Malick Sall ak les VIP VIP bi ma ministre bi daf leen ñoom ñu dem ne après bi ñu génnee ñu ne ministre bi jég jégalu noo ci kanam askan wi alors que ministre bi ban ko joxee parole daf ne ñoom lutteurs yi ban fa demee dañ ne euh, euh, audience lañ bëgg ak Macky sàll en plus pare naan moom nekk seen parrain euh, association ba pare lutteurs yi également pare nan pour accompagner ko bu def campagne loolu bu nga ko déggee lan la la def. kon xanaa jàmm am na kon jàmm am na. Hmm. mais est loolu moo leen fa yóbbu woon. ah déet la leen fa yóbboon nag bi ñuy dem waxuñu ma ko fekkewu ma ko euh, les via VIP nga wax mais moom les lutteurs du Sénégal la wax mhm. dafa ne mbër yi mhm. ci li ma dégg ne mbër yi ñoo newoon ci tali bi mhm. loolu la wax du loolu mooy coow li ñu ne daf ko waxee feneen fudul Sénégal France 24 France 24 xam nga fii dañu tàmm ku am doole rek ñu ne mbër nga te xam nga manifestation yi def ci bari woon ñu mel noonu mais mbër mooy ki am licence. di bëre ci làmb. Mm. koo koy mbër. Mm. xëy na daf leen xàmmeewul woon dafa xàmmewul woon luy mbër. Mm. mbala tamit bi muy am information bi amul information bi bi bi leer ci noppam. pour mu wax ko. Mm-hmm. waaw coow na nag am euh, ñoom it défendre nañu wane ne ñoom du ñoom. te euh, loolu ànd naa ci ak ñoom euh, bu ñu la tuumaalee da ngay dindi tuuma. Mm-hmm. kantaa nag la ca biir nag démarché mm-hmm. yooyu moom fekkewuma ci benn. d' accord en tant que ministre de la république. Hmm. est ce que am na droit dem di wax ci France 24 di tenir ay propos yoo xam ne nii vérifié wu. kay loolu nag xam nga euh, da nga ne en tant que ministre de la république. am na droit wax ci France 24. oui la mu cay wax nag. loolu moom lay engagé ak cabineem. Hmm. ak cabineem. Hmm. xëy na beneen yoon dina ko rectifier balaa muy waxati. dina jël ay information yu wóor. doog a dem foofu. waaw loolu moom euh, je pense que du lu lu koy dalati waaye nañu jàpp ne rek ne euh, nit it day juum nit day juum nit day euh, nit la rek ministre la waaye nit la waaye nag comme yow ni nga ma ko waxee ni nga introduire dem nañu ba sax jaxasoo te jàmm ñëw na waaw loolu rek ci lañ ci doon wut bu dee jàmm am na ci kay alhamdulilahi rabil alamin bu dee tamit ñoom it dem gi ñu dem ànd nañ ci maase ci dem ga ñoom ñëpp ànd nañu ne euh, jégg jéggal nañ ko bu baax déggul baax fi may waxee. naa lay déglu. ñoom ñëpp. Mm-hmm. mbër yëpp. Mm-hmm. fi ñu tënku yépp mm-hmm. ànd nañu ne dem euh, seeti ko mu jéggalu. wax leen ne man dinaa ànd ak yéen jàppale leen. ñoom it ñu am loo xam ne wax nañu ko moom ci lépp ci dem ci euh, wut jàmm. waaw bu dee noonu la demee baax na. seulement jéggalu bi mbër yi ñoo ne ministre bi jéggalu na ministre bi kenn dégg ko mu jéggalu. no jégalu lan nga tuddee jégalu. ba léegi kenn dégg ko mu jégalu. non euh, nit bu rafet rafetlu mënul weesu. Uh-huh. ma wax ci loolu ñaaw. Uh-huh. nga accep ma accepté ngeen ñëw seet si ma. waa loolu rek. jéggala nga ca. d'accord nga ca. Uh-huh. waaw kantaa nag mu dellu ca wax ja mu waxoon ni lii maa ko waxoon nangam. loolu nag moom moom lay concerné. d'accord muy bu njëkk bi. deuxièmement aussi yaakaar naa ne ña demoon. mbër ya demoon mhm. jële nañ fa lu neex seen xol kon kay jaratul baamtu jégalu wi waaye dama bëgg a xam ndax ah, li naa l'unanimité lañ ko defee loolu yaakaar yaakaaruma moo ko puisque après mbër yu bëri gën na di ŋaañi Gris Bordeaux maanaam di pour euh, pourquoi muy dem di wax ak seen seen seen kàddu alors que ñoom mm. délégué wun ko waaw loolu euh, am naa ci sax aperçu ndax invité naa fi Kona mhm. mu wax ci waaye dama defe ne Euh, situation làmb ji du ministère ministre de ministère de la justice lañ koy réglé. exactement benn lu ndaw la woon dëkk bee jaxasoo woon ku ne jàppal sa mboroom rek ne bokkuñu xel bu buy réew jaxasoo. Mhm. am na ñoo xam ne foogoon nañu Sénégal àdduna buy tukki la. te du woon dara li xew ku mu tiital amoo xam-xam. sax nga waaw da ngay jàngat di ci biir lan la li ko sooke. lu ko sooxee pour waaw danga koy xam politique moo ko sookee euh, parce que euh, affaire salon la ñu waroon ko régler ci affaire salon affaire mërs la ñu waroon ko régler affaire mërs mais politique ñu def ci politique. te politique day muur lu bari. pour yow politique bi ko fi indi côté état bi wala. non loolu duma ci dugg c'est pas mon problème intéressé wuñ ma. d'accord man Sonko intéressé wu ma Macky Sall intéressé wu ma. d'accord xam nga lan moo intéressé. ce pays là ñoom ñooñu ñu xam naka lañ koy yore ñoom ñooñu ñu xam na la ñuy def ba jot ci. te bàyyi xel population bi man kenn ci ñoom ëpp mooy pexe ci réew mi gënuñu ma ko xamit te dañuy politique ñu nangul leen ko waaye nag nañu xam ne réew mii di Sénégal ku ne ni nga yore réew mi sóor si population bi boo koy yóotu it sóor si population bi ndax luy loru yëpp ci foofu lay jóge déggoo ci jarbaatu Macky Sall bu dee déggoo ci jarbaatu Sonko bu dee. Mm-hmm. rekku Sonko bu de nangam nangam bu de xam nga ñoom bu doon dañu génn sax ne rey sama jarbaat ñu mën a wax. an seen i mbokk. d'accord moom laa la wax loolu nag xam nga benn parenthèse la woon pour leeral ko rek ne leen. Mm-hmm. man yooyu intéressé wu ma. mu ci nguur geek mu ci nangam daal ku ci ne ku ci ne. Mm-hmm. ëmbal jàmm rek. boo yoree réew mi yor ko ci jàmm boo yóotu réew mi yóotu ko ci jàmm nit ñi am jàmm am salaam dëgg yàlla ndax. gis nga yii fi xew ku ne ngi wax xale yi xale yi mais xale yi ñun ñoo leen jur fan nañu euh, nu ñu nu ñu biddantee ba xale yi dem ci mbedd bi tey yëguñu ko bala dañu xëy rek xale yi màgg suñu kanam parents yi rôle parents yi dañ fa ñun xanaa ñun xale yi bi ñuy màgg yéguñu ko xale yi bi ñuy am soxla xanaa yëguñu ko koo wax discours xale yi xale yi yan xale ngay waxal xale bi dañ ko war a jàngal formé ko soit muy école mbala muy daara après formé ko doo ko wutal emploi soit xale bi bu fekkee dafa am xam-xam te wut mo bëgg moyen ñu wutal ko moyen ban xale ngay waxal ban xale ngay waxal xale bi jàng formé wu ngay waxal xale bi nanguwul jàng nanguwul formé wu est que moom ngay waxal kan ci dafa bari façon xale waaw te boo gisee xale yi xale yi man leen bàyyi xale yi d'accord mag ñi ñoo ñoo biddanti ba xale yi yeewu njëkk ñoo yeewu ne ci mbedd mi d'accord waaw léegi nag nañ leen fekk ci mbedd mi waxtaan ak ñoom <laughs> fexe leen dugalaat ci kër yi. d'accord père ñu fermer parenthèse boobu dugg ci lutte bi en tant que tel. merci euh, saison bi ubbi na ubbi na depuis le premier mars hmm. passé hmm. li nga jot a gis est-ce que euh, xeeñ na neex. bon euh, xam nga nag bu ñuul. Hmm. boo ci amee soow mu weex da koy téye. maanaam ni situation yi demee. ni pandémie bi demee. ni àdduna deme coow li bari yi suñ ci amee ne làmb tijji na dañ ciy sant yàlla. bi ci des niñ ko naroon démarrer à huis clos. Mhm. ndegam dem nañu ba ñu ne léegi mën nañu tolérer mi personne. alhamdulilah. ñun yaakaar yaakaaroon ne ñaari yooyu benn du ci am. même huis clos bi sax am nañu ko gëmuloon kon bu ñu demee ba ñu ne loolu mhm. te gis nañu ne léegi ñu ngi régulariser ay combat mhm. au niveau de CNG alhamdulilah léegi kay li ci des mooy naka la ñuy nekkee feebar bi bi nga xam ne moo gàllankoor ba mu mab bañ ñoo lor. Mhm. parce que tamit njariñ loo fekkee. Mhm. njariñ loo fekkee bu dee dañuy dem stade pour wàllante fa ay jàngoro. pour ñàkk euh, topp ndigal. Mhm. ah jarul lu ñu tijji làmb ji. foofu la ñuy taxaw. dimanche passé gis nga ko gala bi nga jagsi tëggoon. bu dee capacité de stade bi deux cent personnes la woon def na six cent personnes au moins. surnombre la jël est-ce que loolu également du risque ci propagation ah, maladie bi waaw waaw moom laa wax bu fekkee ne dañ ñu jox quota te mënoo contrôler quota bi mhm. te ñi ko waxit parce que tamit nit boo ko joxee charte da ngay topp charte bi ñoom ñoo ne deux mille personnes ñoo fa war a dugg mhm. mais ñoom seeni euh, agent ñoo war a taxaw nag xool waa ji ñaata billet la imprimer d'abord ak ñaata billet lay jaay mhm. ba pare nag ñu taxaw ci bunt bi numéro ti xam nga bureau bi ne am nga numéro. Mhm. voilà bu bu jeexee ñu tëj bunt yi. waaw parce que tamit bu fekkee dañ ko bàyyeek sagoom moom it muy organiser. Mhm. ah da koy defee ni mu ko gisee rek. loolu est-ce que CNG amu ci part de responsabilité CNG euh, état ngay wax. waaw à travers le CNG magu laay wax man état. d'accord état bi état bi muy sécurité muy médecine muy nangam yëpp daf ci am responsabilité. d'accord c'est l'état parce que ñoom ñoo ñoom ñoo la jox autorisation pour nga tëgg. ci mémoire bi ñoom ñoo ne à huis clos jindi ko ne léegi may nañ la deux mille personnes wala mille personnes kon ñoom ñoo war a contrôler à ce que mille personnes dugg dugg ci terrain bi. d' accord gis nañ fi également lu bees depuis ba saison bu ubbee. Hmm. li ñu fi gis mooy promoteurs yi daan tëgg lutte avec frappe. Hmm. maintenant ñoo nekk ci lutte simple bi mën nañ ci cité Pape Thialis Faye bi war a tëgg le 27 ak le 28 mars bi di ñëw si Joal gis nañ également Fallou Ndiaye war a tëgg hmm. loolu est ce que du euh, tendance bi day changé. déedéet du lu bees de. du lu bees xëy na bees na ci yow mais ñun beesul ci ñun. ndax yàgg naa am. Hmm. yàgg naa am lu traditionnel euh, un promoteur ñëw teg ci mise euh, di tëgg fii di tëgg fële. am na promoteur yoo xam dañuy tëgg xam nga licence yi. Uh-huh. da ngay jënd licence frappe ak sans frappe day jaay. c'est te dañu ne sénégalais bu ko mën a jënd. Hmm. jënd ko. yow Assane sax bu la neexoon dem jëndi. c'est vrai mala nga jëndi ñaari. di hmm. tëgg ci ñaari c'est-à-dire nag. Euh, xam nga la lutte traditionnelle euh, li lay wan ne mooy sunu cosaan li lay wan ne moom lu ñu gën a maîtriser moo gën a neex organiser moo gën a neex organiser moo gën a coono bi fa moo gën neex organiser yombul sax mais moo gën a neex organiser te booy xool euh, ni ci gaa yi duggee ni ci gaa yi duggee ak yi ni si yeneen promoteurs yu duggee bul fàtte ne promoteur yu lutte sans eh, frappe yi ah, bokkuñu conception ñii village bi la ñuy tëggal pour des raisons sociaux mhm. ay hôpital yu ñuy tabax ay école ak ay église ak ay jàkk ak ay nàngam mhm. xanaa xamoo ne yii xew ci adresse Senghor par village la cest à mën nañ ko porter ci benn promoteur mhm. mën nañ ko porter ci benn promoteur yaa ngi dégg. mën nañ ko porter ci benn promoteur. promoteur bi euh, gàddu ko mais toujours c'est pour les villages xanaa xam nga lu traditionnel bi ci développement réew mi la bokk. Ah, li mu defar ci waa li mu defar ci école. Mm-hmm. li mu tabax ci miiru école. li mu tabax ci dispensaire. li mu tabax ci case de santé. li mu tabax ci ay jàkk. li mu jënd ci ay gaal. Mm-hmm. gaal yoo xam ne ñoo yor village yi. boo demee boo leen defee xayma boobu ci ngeen xam ne luy traditionnel moo ëppal njariñ sax Sénégal. lutte avec d' accord ñu jógee ci deuxième partie boobu jëm ci troisième partie bi ci grande affiche yi ñu war ci démarrer la 4 avril bi waaw euh, Eumeu seen war ci dajeek Lac de Guiers 2 waaw affiche bu euh, affiche revanche la waaw nan ban analyse ngay def ci combat boobu waaw wax nga ko affiche revanche la te revanche du yomb mhm. dañu daje woon mhm. bi mooy troisième fois ñuy daje te loolu dama koy rafetlu mhm. mbër da ngay bëreek moom deux ba trois fois ba quatre fois waaye bëreek mbër benn yoon rek ne dootoo bëreek moo tax Amath seen vraiment ñu ngi koy ñu ngi koy remercier di di di magnifier esprit de sportivité boobu dafa am solo. su campé woon si seen deux combats wala seen benn combat tey du ñu am troisième. troisième bi te trois euh, trois trois partie yi dafa am lu mu lay jàngal. Mm-hmm. comme lan. kay dañu njëkkoon daje Amath Sène ëpp ko expérience. xale bi bëri ci méfiance. waaye bi ñu ñëwee ci deuxième bi. ñu niil première fois bi. mooy bëri ci méfiance. xale bi dafa bëri ci méfiance. Eumeu Sène cherche côté yëpp mu résister. waaye bi ñu ñëwee ci deuxième bi Eumeu seen indil ko expérience boo xam ne moom it diggante bi jàngu ci. jàngu ci Eumeu Sène. d'accord mooy seen jël bu gaaw boobu nga xam ne. Mm-hmm. tarafatal ay ni la daanaka. ci lañ ko am. léegi ñu jëm ci troisième bi nag troisième bi nag ngay xam maturité xale bi ak expérience su Eumeu Sène encore. d'accord ku nekk da nga jógee ci combat. waaw ba lu mu tuddati Lac 2 dafa jóge ci defet boo xam ne dafa jóge ci victoire boo xam ne ni mu ko amee. kon favori contre Boy Niang est-ce que euh, euh, def na jéego yoo xam ne ni mën na ko permettre mu daane Eumeu Sène. waaw xam nga jéego yooyu euh, xëy na moo xam nu mu liggéeyee waaye ñun li ñu mën a xam mooy li ci kaw. Mm-hmm. li ci biir moom moo xam. mais li ci kaw mooy dafa jóge ci victoire ak Boy Niang. war a affronter Eumeu bi mi jóge ci défaite ak façon defetam am te bul fàtte ne avant dernière lag euh, combat lag de guerre moo ki daan Eumeu Sène la woon Modou Lo ñu nul mhm. mu gagné ko par tapis <laughs> du foofu lañ koy jëlee c'est voilà mu war a ñëw nag dajawaat ak kii déjà moom li mu tenir tête Modou Lo mhm. ba Modou ko part tapis vert moom lay indiwaale ka wan Eumeu seen ni ki la daan mhm. ki la daan maa ko të d'accord loolu lay ñëwaale. d'accord mais souvent Lac de dafa tàmmal nit ñi ci face à yi mu tenir ay propos yu extraordinaire nga ne kii bu demee day rey mbër bi mais au finish bu dikkee day day taxaw est-ce que jotul également mu libéré wu ci combat yi ba mën a daaneek adversaire am. non je ne sa question boobu est bien formulée déedéet. souvent loolu ay ay ay feera loo xam ne. nii amateur yëpp dañ ko remarqué waaw non yow waxi amateur ngay wax waxoo ma waxi. amateur laa fi représenté xam nga déedéet non non non. d'accord et le lutteur. d'accord nous sommes au milieu. d'accord ñun nous sommes au milieu. d'accord man du ma noonu. Euh, question su ma ko doon formuler. Mhm. dama naan la ndax ndax li muy maanaam par exemple euh, kii Lac de Guerre 2. oui Lac de Guerre 2. Mhm. Euh, gis nañu ne stratégie yi muy teg. souvent day nekk à la défensive. bon waaw kooku boo peut-être mën nga ma ko laajee noonu. mais ma ñëw ci question bi rek. ni nga ma ko laajee Euh, Lac de Guiers 2 euh, du mbër muy reculer. mbër muy replier la. lan différence bi. waaw repli act de combat la. rep euh, reculer daw la. daw la d'accord. am na recul am na. Mhm. daw dafa am recule am. c'est vrai. reculer. Mhm. et replier mhm. du benn. oui repli act de combat la. mais est-ce que combat boobu ni ko nit ñi séntu est-ce que nar na neexee noonu. ah gisoo deuxième bi. gisoo gisoo première bi. waaw mais léwél. deuxième ak euh, kii bi <laughs> troisième léwél bi xool léwél bi ni mu neexee woon mhm. xoolal deuxième bi seen combat mënu ñàkk rek mais durant kii face à face yi euh, Lac da def ci tamit ay propos taxal ama seen ay kàddu yoo xam ne nii rafetul est-ce que loolu war na ci diggante ñaari adversaire du ma ci dugg du ma ci tontu mhm. ndax weesu foofu mhm. ci làmb mën nga ci mën nga ci joxe benn mm, conseil en tant que non du ma ci joxe benn conseil d'accord xam nga lu tax dàq ginaar. Mhm. bu la ci coow toppee. Mhm. yemoo ci kes. <laughs> d'accord. chez sportif nañu yem ci sport bi. oui conseil la. déet même bu dul conseil sax même bu ma ko joxewul conseil bëgguma di wax ci détail yu mbëri. d'accord ndax man dama weesu loolu. d'accord seeni détail du ma ci dugg. d'accord yooyu ñuy waxante noonu yéen yéen a leen di pousser à le dire <laughs> moo tax yéen it dinaa wut occasion pour ne leen former wu leen. d'accord. parce que ñi ngeen di waxal c'est des compétiteurs. c'est vrai ñi ngeen di waxal ay bagarreurs lañu. ñi ngeen di waxal ay nit lañ yoo xam ne euh, xam nga ki nga xam ne day préparer un combat. am na nooy waxee ak moom. mais day génn day génn ay propos incendiaires. c'est loolu ñun yàgg nañ ko xeex. c'est yàgg nañ ci xeex ne leen nañu dem nañu formé wu juwaat. d'accord ñu mel ni man dañu war a formé juwaat xool ni ñuy poser question. parce que tamit. Euh, safara bi soxlawuñ ko ci face à face bi. waaw mais sa face à face war na tàng quand warul tàng. warul tàng mooy jaay combat. wa jaayul combat. lu muy def day yàq komba bi. pourtant Balla Gaye bu dikkee day tàngal te combat. déet ça dépend ça dépend ci ci phase bi ñu toll. par étape la attention bu leen bu leen bu leen porté Balla Gaye euh, euh, kuy kuy kuy wax eh, propos incendiaire déedéet. du du porté ay propos yoo xam ne nii da lay permettre nga def violence mais quand même. ah déet déet kaay moo wax la. yow tey jotu doon un exemple. maa ngi lay déglu. fu ñu nekkoon. cest à fu ñu doon defee face à face. ci benn hôtel. Oh, ci benn hôtel. oui lañ doon defee face à face. bés boobu lu ko gën a rëy. Ah, am na coow. déet lu ko gën a rëy ci jekk. waaw rafet na moo tax am na. lu ko yàq. Ah, am na coow xamul. lu ko yàq. am na coow am na xeex. mais est-ce que xam nga ne foofu lañ leen commencé détester ci lu bari. ah la. li yàq làmb foofu la jógee. violence wax ci làmb boobu la ñu gën a téye guy gi am abal di ci corniche bi da ko fàtte c'est vrai ah jos bo euh, kii ñaa euh, booy ñaa da ko fàtte ah waaw temps mais nag malgré que bu la journaliste wala bu la reporter poser question bu dee yow ak sa maturité war la la permettre nga am propos yoo xam nga yéen xam nga ñun ñii par exemple. Mm-hmm. et ñu poser question boo xam ne kii dañu naan diw nee na. ci loo xam ne lii bokkul ci làmb. waaw bokkul ci làmb yi tamit. lu ci làmb bu du bul ko laaj mbër mi. d'accord même même bon xam nga euh, mooy li ma la wax tollin la ci ñoom. Mhm. ngay préparer combat nekk ci benn xadar bi. Mhm. ñu ne la diw waxoon na lee say waajur. mais attends. d'accord yow jour yow journaliste bi xaw ma. reporter bi dañuy jaawale journaliste reporter. d'accord d'accord yooyu yëpp tamit yéen dama bëgg ngeen ngeen réfléchir ci Assane. parce que l' avenir de la lutte la seen loxo la nekk de ñun xoolal pare nañ ci. ñun dañ leen gunge nii rek man làmb dem ceek ñàkk cee dem laay bare. déedéet man la ma cee doon def def naa ko. mais yéen a des nag ak euh, generation bi fi des. attention yéen yéen man yéen a gën a metti la de. <laughs> ok dégg nañ ko léegi ñu jóge ci affiche boobu jëm ci combat royal bi war a dox ci diggante Ama Baldé ak Modou Lô. waaw ñaari nit ñoo xam ne ni mosuñoo laale à chaque fois ñu ngi nappante combat boobu war na tàng nest waaw loolu na tàng war na c'est le combat le plus populaire. oui. c'est le combat le plus populaire. pour yow ci affiche moo ci dàq. wala euh, yóbbu leen yóbbul ñenn ñi stade bi nga yóbbu yeneen yi beneen stade nga xool benn jour bi. nga xool fu gars di seetaan loolu maa ko wax. c'est le combat le quiconque bu wax kii la c' est le combat le plus populaire. kan moo ci favori pour yow ci combat boobu. favori mooy ki ki ki ki ñu bëgg ki ñu bëgg nangu yëf yi ci moom. Modou Lo ah mooy favori. <laughs> Ama Baldé lan mooy foram wala lan moo lan la war a apporter pour mën a daane Modou Lo pour yow. lan la la war a apporter loo xam ne nii war na mën a daane Modou Lo ak Modou Lo ni nga xamee résistance bi technique bi Ama Baldé fan la ko war a jaar pour yow sa analyse. waaw xam nga boo nee Ama Baldé xam nga Ama Baldé euh, day ndaanaanu mbër nag. te day xale. te toll na ci am doole te yàgg na am tàkkusaan te mooy jël ci revanche daje na mbapat. te muy muy jël ci revanche ndax daje na mbapat Modou Lo daan ko mbapat. waaw mbapat du arène nag. waaw jàpp na defet boobu quand même. waa déedéet mbapat du arène. dëgg ba ñuy toll ci mbapat ñu nii de. tolluñu nii de ci gabar yi. déedéet. mbapat la nga wax. mais yooyu am na changement seen seen seen morphologie seen yaram ak seen expérience. mais défaite boobu moom daf ko jël comme benn affaire boo xam daf ko téye pour que mu mën a. fayu je ne pense pas je pas je ne pense pas Ahmed Ama Baldé li muy dabu ci Modou mooy dañu bokk génération te Modou Lo teel a bëre teel leen jiitu. dabe boobu la bëgg. ma wax la li xew. mooy loolu. d'accord bëgg na wan nit ñi ne Modou suma génération la. war naa ko. waaw waaw fu mu ne war naa faa ne loolu rek la. wax enjeu combat bi yëpp du dara lu dul Ama Baldé dafa bëgg wax nit ñi Modou fii mu ne war naa faa ndax benn génération bi la waaye chance su mooy dafa teel a dugg ci làmb ba pare. Mhm. teel a échelonné teel a toll fa mu toll. loolu tamit chance la ci Modou loolu la Ama Baldé bëgg a wane favori nag mooy kii yor li ñu bëgg. kan moo yor li ñu bëgg. waaw koo koy favori. <laughs> kooku la ñu bëgg daan léegi ñu jógee ci affiche boobu. defante beneen mu war a dox ci diggante Bombardier ak Balla Gaye. waaw ñaar ñooñu également mos nañu laale Bombardier daane ko. waaw jëloon roi bi ci Balla ñu war a dajeeg bo Balla Gaye dafa waxoon dafa blessé dafa gaañu woon jour boobu te bii dafa ñëw bu wéree peñ pour jël euh, daane Bombardier wan ne ko les erreurs la woon. waa dañu war a bàyyi ku daanu ne dafa gaañu woon loolu dañ ko bàyyi ndax euh, revanche tax parce que Euh, man daal su ma doon mbër daal ma da bu ñu ma daanee daal. Mm-hmm. lu ca mën a amit euh, ba mu des dama gaañu woon. Mm-hmm. wala dama feebar. Mm-hmm. dama koy nëbb dama koy téye. waaw dama koy denc daal parce que daal je pense que am nañu am nañu yeneen argument ak gën yooyu. parce que euh, fa nga koy waxee ji fa nga ko war a waxee ji waat. moo tax moo tax xam nga tey jii. ma jox la exemple. xam nga yow yaa ne Balla Gaye nee na dafa. gaañu woon gaañu woon. waaw bii xam nga nu muy demee. xamoo ko. c'est xamoo ko. mais est que loolu euh, affiche boobu est-ce que. ah yii duñ ci doyal. Ah. bu pop duñ ci doyal. Balla Gaye. Euh, mais ñoom sax bee passé dañu ameel bor. Hmm. Ah, dafa. dañu expédier combat bi. dafa gaaw mais ñoom ñaar dañu ameel bor. seen combat ñun duñ ci doyal. Euh, Balla Gaye et puis Balla Gaye xam nga bésu Balla Gaye. xaar nga ci xeex. waaw ah, waaw ñoom ñaar dañu ñoom ñaar amul waaxu jàpp. Hmm, kenn waaye ñoom ay jiit lañu. waaw ah, waaw kuy ba ñu fett la moom bu jaar ci hmm, bu jaar ci kii bi. Balla Gaye kenn du dox di ko jàppi. Mhm. ba Bombardier kenn du dox di ko jàppi. mukk du ñu du ñu mbër yooyu. Bombardier est-ce que dina dina nangoo dina yomb daani que euh, euh, bu njëkk da doon bu doon daanu ay quatre appuis la doon def nga des kii déséquilibré ko mu def quatre appuis mais dernier combat am dañu gis ne loolu daf ko bàyyi à partir de sa moment est-ce que dina yomb Balla Gaye dugg ko. ah déet xam nga loolu nag euh, Assane. Mhm. ci mbër ma état bi muy indi bés la. parce que boo fa nekkul nag te waa ji nekk fa du la fa xaar day ñëw defar la waaye boo fa nekkee waa ji nekk fa mhm. eh, looloo jafe <laughs> looloo jafe mais jàppal ne euh, combat offensif la ñaari attaquant combat offensif la loolu de sax attaquant mhm. mais seen bëri mool moo moo ñoom ñoo bindoowul recul ñoom ñaar seen bëri moo bindoowul recul Balla Gaye su at bi sifflé mhm. li jëntuwul li ne ci kanamam moom li mu indi la gëm. Bombardier waaw ah, moo tax combat ba gaaw di. <laughs> ñoom ñaara yem. bu ñu déclenché du ñu bàyyi. bi passé xoolal bi bi Balla gay déclenché rek ci lu Bombardier riposte rek dox. wuti ko te da ko fay fekk. ndax Balla du fa jóge ñu tàncaloo. boobu nag dañu xamul ndax bii yoon boobu lañ ñuy may mbala yooyu. mais nag attention de lii ma lay wax bàyyi ci xel. Mhm. su xeex bi yàggee. Mhm. te jàppante amul. Hmm. am ko wàcc. kan mooy wàcc xaw ma ko dina wàcc na am de. mais am na am na koo yaakaar ne. ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci point boobu man maa la ko wax. su xeex bi yàggee jaayaaraale bi. Hmm. te te jàppante gaawul. kenn warul sa morom. dina am ko wàcc. mbala mbala mbala mbala kaawo dina am. xam nga luy kaawo. kaawo ah bi xam dóor la nga wàcc. déedéet. kaawo du sud de. lan kaaw mooy gëlëm. Ah. ba léegi chute amagul. il faut éviter naan euh, euh, kaawoo na ko làmb ji jeex na kaawoo mënul jeexal làmb. waaw mais souvent la kaawoo da ngay déedéet nit kaawoo nañ ko te daanuwul. loolu danger la bi bi bi bi muy daan màng boobu dafa kaaw parce que Manga du ko dóor da ko direct. Mm-hmm. mu di ko jëli fekk ndeke euh, dafa kaaw mais jeexul da ko daj rek kii ko texu ko. dem na fi bari na fi mbër yu dem ba kaawo nga defe ne ñu jeexal nga daw ñu daan la kaawo euh, def na loolu waaw kaawo mooy gëlëm loolu dama bëgg ñu ñu ñu ñu rectifier loolu euh, boot na ko comme mu fàttali nes Papa Sow waaw daf ko kaawo tamit kan moo kaawo Papa Sow moo ko xaaral kan moo kaawoo ci combat boobu Papa Sow moo ko kaawoo kan moo kaawoo nañu kaawoo ci combat boobu nees lan kaawoo ku daan nees moo daane. Ah, waaw kon kay xam nga exemple boobu indi naa la ko. nees moo kaawoo waaye moo daan. c'est vrai du chute. Mhm. moo tax euh, foog ñu defaraat euh, langage yooyu bi ci des encore mooy boot ñu ne boot na ko làmb ji jeex na. mën nga sëpp sa loxo. mais boot déedéet mooy porté. porté ci kaw mooy porté. boot mooy porté. botti na ko. botti na ko moom mooy jeex na chute ba. waaw chute boot ak boot porté. Euh, booti projeté d'accord ah waaw loolu de Assane de lañ ko ci boole jaajëf léegi ñu jógee ci affiche boobu hmm. dem ci Tapha Tine ak euh, Boy Niang ah fois ñuy daje combat ngoogu mhm. te ñoom ñaar xam nga lu leen boole ñàkk pexe waaw Boy Niang Balla Gaye doon yottu kii dafa wër ba sonn gisul kii kii wër ba sonn ñu ku doon ku doon ku dugg ci néeg la ak ku bëgg ñu wéttil la <laughs> ñoom ñaar d'accord est-ce que liñ ciy xaar den ko ci am moo loo ci xaar yow. Euh, explosivité bi ñuy xaar ci ñaari mbëri yi. waaw waaw c' est des c' est des c' est ñoom ñaar. Mm-hmm. si c' est des lutteurs explosifs. mais Tapha ak gabarit bi mu am souvent day am problème am adversaire alors que ñi nekk ci kaw kenn mënu ko ci pourquoi mu am difficulté boobu di am ay adversaire surtout ci ci ci ténor yi. waaw non euh, ñoom xam nañ ko ñoo ko bëggul jël. lu tax bëggul ko jël waaye nag xam nga di ko prétexte Ama Baldé du wax. benn temps la woon. Mm-hmm. Ama Baldé daan ko. Mm-hmm. Mm-hmm. seen revanche bi gis nga. combat Modou Lo ak. Euh, ak euh, Ama ko yàq. oui demoon na. bi waroon na fekk heure bi waroon na. bi après ah, na fekk ñu régler loolu. wala ñu nekk ci. pour yow Ama Baldé lay wër. mais attends kuy wuti Tapha Tine. ak Modou Lo ne ci euh, dajeeg Modou Lo. nga da koy day taxaw foofu. c'est vrai. Eh, la doon wut. ñu revenir ci affiche bi. Tafatine ak euh, Tafatine euh, booy ñaa combat bu explosif la. Mhm. combat bu explosif la. Mhm. combat boobu moom. xeex lay taawloo kooku maa la ko wax. xeex mais bul ce que Tafatine du am avantage. Tafatine ça dépend ci xeex ba. Hmm. xeex rapproché la. Mhm. ak xeex à kii lii arrangé na ko. kii lii arrangé na ko. waaw kan moo ci imposé sa moroom nag si style. foofu la ne. d' accord temps bi waaw uh-huh. combat bi euh, rapproché la ak euh, distance. d' accord voilà léegi nag foofu la affaire bi ne. kan moo ci imposé sa morom. Euh, bataille bataille à distance bi. kan moo ci ba imposé sa morom bataille rapproché bi. foofu rek la ne au ku ci jiitu sa morom rek mën nga la jël sa morom. dernière guy gi rëg baa ngoog moo tax bi guy gi di xaar. Uh-huh. ñoo naan dafa daw. déedéet man dama ànd ak moom. li mu def ci bëri doo Reug Reug def ko. te ñu waroon jël Reug Reug ñëpp. dañ ko dañu bëgguñu ko woon jël ah, ah, ci moment bi dañ ko ragal wala. déet ragaluñ ko. lu tax bëgguñ ko ragaluñ ko parce que dañu xam ne. Mm-hmm. yàgg yàgg day ñëw seen biir. te xam nga euh, dañuy xool kan moo koy njëkk a ñam ci ñoom <laughs> waaw. donc góol guy gi porte la ci rek rek bu ko daanee ma ci kaw waaw guy gi boo gisee mu xaar attente mu doon xaar pour euh, pour jël da doon xool paramètres yëpp pour jël waa ji mhm. parce que waa ji tamit du du du du kenn ko sànjaafu mhm. compétiteur la compétiteur la mhm. te léegi sax yokk na ci euh, waxuma la niveau sportif dafa gën a kawe ndax compétition yi muy def. waaw yooyu yëpp da koy sóor kon euh, guy gi ku jar a la parce que bu ko bañoo nit kenn du ko rapproché lenn le fait que mu jël ko nag mhm. moom guy gi bëgg ba gën a dundal làmb parce que tamit ñaari ngi ci mhm. soo ko daanee mhm. ah attention ca xam nga rëg defet sax terewul carrière day demaat amagul defet ba léegi même bu amul defet defet wàññiwul dara rëg cest c'est-à-dire da ko dul bëgg ay bokkam kenn bëggul defet waaye bu daaneel ku doon làqu mbala nga ko doon yooyu xew léegi layam layam xaw ma <laughs> <laughs> yooyu ñu euh, politiciens yi indi léegi ku doon layam layam di nga wax moom waaw waaw Assane mais euh, jàppal na daal man daal je maa ngi félicité guy gi ci jël bi mu jël rek rek mm-hmm. ndax combat bu rëy rëy la nar a bëri ñoom ñaar ndax rek rek ah attention. rek mm-hmm. rek nag du du du ñeexu ñeex. ndax benn moo rek ci forfait bombardier bi doon euh, daje ak Tijaan. di ko di ko di ko est-ce que du dafa seetlu gis ne affaire bi du baax. non. Ah. non dañoo am ay réalité de. ah non da ngeen am. Sénégal dafa am ay réalité est-ce que seetluwul xiis ne du baax mu forfait ci jour non non non non bombardier du tricher. Mm-hmm. bombardier musul tricher. Mm-hmm. bombardier ñàkk mën a tricher sax moo tax combat yu bari mu perte ko. c'est vrai fii. Mhm. Bombardier du tricher. d'accord Bombardier lu mu la ci la nekk. d'accord ci ci wàllu carrière mhm. ci li ma xam laa wax ndax xaw ma vie privée am. Euh, mi ngi ci. dafa dafa dafa yëg ay douleur te foofu du Sénégal mu doon Sénégal sax mën nga ko maasale. Mhm. mais fële. Euh, tamit waaw Pologne ñoom sont professionnels. Euh, te it sax xam nga ñoom dañ lay seet avant avant tout bon comme am na douleur nag dem ñu xool ko ne ko mënoo compétir vraiment. Euh, ñoom ñoom ñoom amul négociation. d'accord waaw kon maa ngi ko ci euh, masawu yàlla wéral ko et puis ko féliciter ci compétition boobu. d'accord arrivé nañ ci jeexaayu émission bi je pense que je vois que. Euh, échange la gënoon a nekk que émission waxtaan la woon mais ñu ngi lay remercier bu baax a baax. mais échange mooy émission di la bàyyi nga tàggatoo émission échange la waaw émission échange la. Euh, bon <laughs> da ngay wax may wax. Euh, xam nga nag léeg-léeg kaani gi ngay bëgg. Mhm. dama nekkatul ci toj kaani léegi. <laughs> xam nga man nag xam nga sama yëpp dafay dafay dama ko njar. d'accord waaw ndax fii jamono àdduna amul solo. te lii yëpp dañ koy wax waat ëllëg. Euh, te it euh, nañu bàyyi xel ne lépp loo wax mhm. lépp looy wax mhm. wax ko ci wax ko ci wax ko ci ci njëkk ak teraanga njëkk ak teraanga mhm. parce que li indi loolu mooy ëllëg da ko fi bàyyi ëllëg ci la njay seede àdduna amul solo doon sekk bërk démb rek li fi jóge dem yàggul defe naa mi ngi doog am huit jours kon defe naa ne yu mel noonu yu bari dafa war a jàngal nit ñi mm-hmm. moo tax looy wax rek fexeelu na rafet mm-hmm. ndax bu ëllëgee buñ ko tegaatee mm-hmm. xel yépp ñaanal la waaye wax fi loo xam ne ni buñ ko tegaatee am ñu naan kii mënul loolu ñàkk dem <laughs> kooku moolu na la d'accord waaw yàlla yàlla doolu sutura di leen duyu di leen sant vraiment kontaan ci émission bi euh, li ci euh, bu ma ci juumee it mbala ma wax ci loo xam ne heurté na mhm. euh, maa ngi koy jéglu euh, mhm. jublu moo ci loon loolu lu dul rek ànd ak yéen ci loolu pour rek ñu gën a dund luy làmb jërëjëf père loolu moo doon seen huitième numéro euh, jotaayu làmb amoon mbégte présenté leen ko di leen jox rendez-vous ci yeneen jotaay jërë ngeen jëf